nga xam ne groupe yaatu la fii ba Touba ñëpp a ngi ci ba ci diaspora bi comme li nga wax noonu maa ngi ci bu baax maa ngi am connaissance ci ñoo xam ni siiw nan ñoo ngi ci télé yi maa ngi waxtaan ak ñoom toujours waaye nag euh, teguma ci kenn direction ni ko tey nga wane ma hmm. ndax kaay wane ma kaay kaay kaay wane sa bopp da koo gën hmm. koo ni woo ma ban woolaat loo mën a wane danaan kii deful dara ku la taam nag ba woo la loo def mu jàll. Hmm. Euh, am na ci ñoo xam nit ñoom may imposé fii Touba Dakar pour ñëw production defar ma tournage sans moyen sans ma def dara mais ñoom ñooy soxla vidéo bi après partager wut fu mu ko dugal seen vie rek lañ ciy soxla mais péré bu ma woon pour def loolu. Hmm. ma bëggoon lu may def lu ne ma gis ci sama bopp. askan wi gis ci boppam ñi ma nekkal gis ci seen bopp hmm. euh, aar daal yaatu na tey tekk tekk gën yuréet la moo tax ngay ab célibataire <laughs> waaw célibataire yi damaa gis ci ñoom hmm. wax dëgg yàlla weeru koor ñoo koy jooytu metti na lool ci am na lu ma ci jàngal hmm. ngir yàlla fi sabilillah <laughs> dama koo ñaan borom kër yi saa yun waxatee allahuma laka sultu wa bika amuntu ngeen yërëm célibataire ngir yalla fi sabilillah ca takku buru ca kasu kafe ba yex ba jox mu sedd ah wala nga wara joxe tandar mo woy ko fa yoy yeb da metti ci célibataire bu wor ba ngon bari na célibataire xamni ni ngon aw nakar la ni ndoko wala ñu dem seen kër copain am man day wax deug yalla kër ga tay ji mom doxul lu tax doxul ah man maire bi damaa bañ wala nii nanga bu nit joxe mburu gu ndaw lan may jox yooyu bàyyi leen ko célibataire mooy doon marié ëllëg nag wax dëgg fa yàlla jox leen leen cër jàppale leen ci kër gi ah célibataire yi sonn nanu sonn nanu ah, gaa yi damay wax ba sonn tamit ñu ci bareet nag sonal naa leen ban takki soxna waaw góorgóorlu nanu waaye nag dafa des maa ngi leen di xeexal ci kër yi buma genn nak kenn dima wax len na ngeen xamni célibataire am solo ci kër waaw waaye waxuma nak célibataire nga xamni ñom xeyinu xëyunu gontuñu bo xeyul gontul do neexa kontu nak dan lay xawa a jéppi taalwantiloo ba yàq courant ba ah ci borom kër gi tak nga sacc ko jaay koku mom do mën a wa waa kër gi waaw li leen dund fair play célibataire bu ci mën am sa saakos meew nak wala sa nga su ndaw nga tek sa laltu gu ndaw boobu oh, bu gu maga da nga ami gam da ngay dal di fexel laltu gu ndaw gu toll ni si jaade rek xamni yow bagage ci wet gi nga koy fegg ak sa kasu sa kasu ben bi ngay nané ndaw wala kaas ndaw waaw ak sa ak sa meew ak xamni yow rek da ngay beru waaw gur gor lu defal seen nak ndax koor gi dana tang ci dem metti ci ca ku amit nak koor gi taf amna yu bari yu koy yak amna yu bari ndax abaye yi gone yu jigéen ñi xewal léegi daf corruption ah yooyu abaye baaxul abaye bi day oyaf te bu ci janoog jant bi nga seen wa keur ga yapp te bir wa di len ko bolé lu xaw deul ci bir da ci am solo wa bàyyi leen wor ba ngon yak koor jamur yakale seen koor koor liko ko yak bari na de len ko moyu wa wax na ko waxati ko dafa nga ni nak ah mel na nga wara mel ca ñom ñolay gëna gën a xam ni mool na yi mo xam na nit ci bopp ni mool na ndax dañu taxaw ci sietu ni ma def ni ma moole ni ay way li ba jamm la waaw xam nga ni du jamm nga jog nak waaxut jaar ci mbedd mi son lo xam ni wala ah, seen ma day tali ngir yalla koor ci lan mëna defaro ci lan mëna yaqo wëru weeru la yo wëru barkel weer woo mën a defar woo man cee yàqoo woor ba ngoon xam nga ni xiifal xiifal rek nga def ay whatsapp ay bébé cœur moo amour yooyu yooyu taf kër seen dafa xaw a doy waar kon ngeen bàyyi xel yooyu booy mel ne soxna bi képp maa ngi ko forfait bi tuuti jaar fenn nga ñëw sa xol booy dugg plein de wax mu ne koy dóor góor faw yu faale mu ne ma ñu waroon dem loolu sama carte su doon ba dégg wax ma si ndey si yoon sama son mu ngi daw seen téléphone gisuma la maa ngi liggéey sama yoon bi may soog a doon mu métti teg ko moo woon tey la pour neex maa ndigg maa ngi dama man sama bopp sama réew te bàyyi font booy boo xamoon bànn bi doo ko mën a soxla comme la fay booy font am naa yeneen daa ci am si compte mais du ma ko def damay xaar toll ni nga bonee rapport bi yéen war nga ko jomb balaa ngaa dagg xuur ni nga demal jog ni nga amoo essai mënoo raw du fulu dix dafa benn jàpp si ay friti bi gàtt laa defar yéen booy dugal leen néegu góor dagg seen kooy da nga gàtt fiis maa ngi sa kaw am nga gàtt fiis maa ngi sa kaw da nga gàtt fiis maa ngi sa kaw am nga gàtt fiis bi taw li si ñun la booy dund xul da nga dem booy dëkk ñu kaw maa ndax rab tay ba faaw xeex naa gàtt seen booy seetlu kaaw yàq seen géem comme buuba na mbaaw sa carrière bu doxoo ñun suñu bos dafay naaw Yeah, nigga. Okay. Maikando Musa Bayi, Gebino Mumeti Meti Duma Musa Tai. Sebentas Duma Bayi, hanya sesuai bagi my jelly tongue. Yeah, yang kisah and tar, MC Budeka turu my character fight par. I know you on my Facebook I jam a Jema Honda tar. My third day regular. lock up everything including the internet Muska and his sky you know, lock up his sky Some of tur musim bad some of Facebook's internet. tar. Wassalamu. Yeah, nigga. don't wrap Sahma Asi. nekk di ko creuser teg microphone amul tricher mic ki koy tricher freestyle number two ma Modou number two maa lay jox nga di rhyme nga koy ko dégg sama rhyme ne la carax dama lay sonni daal maa la gën a doon bandi dama a sarax ne dox te kenn du ma suul yaag sa ci man duul maay teg improviser bandi baa nii ngay jeew teg freestyle impro ma wala ni dama réew freestyle ñu def tour au radio teg microphone ma walla dara dagg say ration doo jot ne nga may teg impro ama jot pour yow ne nga dama lay suul te du yàgg sax may teg may nga foo damay rendi ngay sax freestyle impro big bi mënoo ko très sax sama rap day rën te day teg may nga foo wëral rap may gën teg improviser rendi leen ak may gën yaa ma gën a nëw freestyle jàng na ni bal te improviser sama ram day dal fu mu fekk doo ko kal pig may dëgg bi lay kal big moo la gën a jaaxal kan la fii la teg microphone ki lay kil man la improviser ko jox la ko nan la microphone ceeg ma xulli samay bët tàkk jëpp teg improviser ku may fay ma làkk sëb teg improviser nega damay làkk ay rhyme ngay dégg samay microphone gën a teg say fin freestyle root ni ko ci teen day xóot nega xajul sa brain ubbil sa nopp ma xelli lu tàng jër gaay di tàttan teg microphone ma indi xam-xam yaa ma gën a naw freestyle ma nekk ci kàngaam microphone ceeg dama ma faj dama crazy yaa ma gën a nëw improviser damay lëw nekk booy dama tërëdi mënul bokk nekk ndax damay laale teg microphone man dama la kaale teg impro te bu leen fekk du ma kaale may teg DJ bi di ko criser rap la may def nekk dama la kaale kii jox ma benn téléphone may teg impro boo amee gel ko téléphone teg microphone bàyyi leen ku leen iri ngeen koy foon teg riim la may def nekk te ci foo nga jox ma benn verre samay rende day leer pour muy leer taalibe bambala akaza la jox ma rab ñu dem dafay tasaaroo may avanté nga tàllal ma benn morse da nga soj sa est-ce que doo ko jël morse yaa ma gën a na booy freestyle la may def ni nga yéen ñëpp ñandu freestyle improvisé à la accu sama gaay di béggee salli siiñ dama lay biiñ maa la gën a dee teg riim naan la ni biiñ yaa ma gën a nëw freestyle dama tàng bu ngeen teeloon ndànk plateau bi laay lakk bi tàkk may nga fon teg ni ma gën a gàtt sama raam ni mu a teg improvisé big bi jinne la teg microphone nga ni kan man la amul lu ma deful fii style mu ngi cool lu leen ngi wax man ba léegi mu ngi cool ba tax bu ma waxee ñu ne kii dafay du waay mu ngi cool ba tey mu ngi cool man yàlla rek laa gëm because moo rek ay buur te moo rek a xam kuy wax dëgg ak tur fu ma mu dem ñu ne may ka fekkataa waay mu ngi cool ba tey mu ngi cool Oke, Mister jalan kan di mami maami rappeur sel mi nga bu dee woote tàngoon ne ko man la sàkku kajoor ku fi nekk may sa buur man la lajoor ñaata crime laa ma do dul maa gak fi doo brick, teg birik wax ma loo doon même boo dee gon troisième baram no love my boy def kai kai Kurva. yeah bi di job lu leer ba ak si ne ko marhaban soppi wat seen moo du rab ci bennoon melokaan yu ko fegi jàq leen rab gaal seen am na gaan dem daa bëri xaajo maa seeni wax sa kan te leer na naañi li may për dama ci teg ba kan MC yore ji ko xaju gabal ko xiiru ñoo ñëpp soow ndax koo ci tegal alxatir mu xiiru MC panla si fi sànni fële ne wen ci soow gém bi dum ganta fu ci fële ñu nekk ci son taam si a ci ma ko booyi gaase lenni carbonique ak ñu oxygène peuple bi laaj domi atomique pour ñu song big ma jun agressé arabi dafay daal néega foog seen RNB yeah yeah moo ngi kuul kuul ngi kuul moo ngi kuul fii ci nga FM kuul kuul kuul ngi kuul moo ngi beneen mën nga ci beneen sa laaj sa def man liggéeyam a gën ki yore làmmiñam di wax te defuloo dara dara Ilige hati wër di wax weer bu dee yang yam manu yam pada fighting sa ci nango dori waar dori waar tetok tekam a Ya ucap dox te xam li have